siyaar bu wér sant Serigne Touba wér. ci loo nekk. sant yàlla bu baax maa ngi si jàmm. noo gisee lamb. neex rek ak mbégte ah parce que tey lii gars yi namoon nañ ko quoi na gars yi jàppale lamb parce que lii lañ am quoi billaahi. Euh, tey nga indi Pokola ànd ak Malick Ndiaye 137 fu ñoom ñaar ñu daal leen nan la def ci yow ak euh, bi nga xamante ne dernier réglage ci ngeen nekkoon lan ngeen waxante woon ak liñ indi est-ce que utee na ñu xam ni ñun ñi nga xam ni ñoo leen indi am nañ tàkkusaan yu mel nii ñëw ñàkk ko te dañoo delluwaat si ruq defaruwaat ay xale lañ nañ nekkaat ci ruq bi rek liggéeyaat lépp mën naa nekk bis bi nga war a ñàkk mënut a ànd ak bi nga war a am yàlla xañ na leen yàlla nañ defaruwaat yàlla defalaat leen ndam sedd guy bari suñ lii lan la may sa ñu bëre lii lan amul problème <laughs> dara amul waaw sa combat ak fan la. gërëm moo tàng rek gërëm. ñu ngi si sa combat ak ñëpp du Franc kese ñu ngi dox sama combat ak ñëpp bàyyiwuma fi kenn képp ku làmb wax ñu ne kii moog soq jaadu na barki Serigne Saliou bàyyiwuma la ñëpp laa wax. Moussa Ndoye. ñoom ñëpp Moussa Ndoye Franc Anta. Thiat Boy Bambara. nit. boo pour mu leer ñoom ñëpp ku pare pour ma bëre ak moom pare naa pour bëre. promoteur yaa ngi koy dox guddeeg bëccëg suba ngoon. maanaam ñoom bu ñu la contacter fan lay dëgëree fan man ku ma contacter boo ma bëggee jot Matar Ndiaye a ngi nii pour combat bi gaaw yombalal naa ko ñëpp bëre moo ma fi bàyyi pare naa pour bëre ñëpp bàyyi ma fi kenn. donc mu mel ni gars yi dañoo namoon lamb ambiance lamb noo gisee lamb. kontaan barke Serigne Touba Mbacke képp ku fi nekk rek sa sedd na parce que lamb dafa tëjoon ay moo ñuy toog di xaar yàlla ibbiwaat na ko moo tax ñëpp mbégte la ñu àndal. maa moom dañoo bokk ndey bokk baay waaw bisam moom soo bés a. mais naka wàccaay bi. non ñu ngi waaj bu baax. suñ ñëwee nañ ko xam. non damaa poté poté. yaay kul. nam naa la. waaw fan ñëw ci sañse bi fu ko léegi. yii bari yii moom Serigne Touba bari na ma ci yii moom ku ne xam na ni bari naa ci bii du ko solaat doo ko gisaat fenn bu la neexee ngeen xool ay vaar ak ay yooyu. jox ma ko ma man ma wàññi ko. Ah? ma defar la yeneen man dañ may jox rek. taalibe Serigne Touba yi ku ci mel ne Omar saw Omar saw mel day yëkkati ay jesneer di ma ñawlu di ma jox may sol xam nga moo tax yii moom garaawul waaw. tàng na lamb ji neex na neex na trop yow eh. neex na trop. trop nga la lamb bi nga wax normal nga bàyyi say ngay def léegi. waaw mais damaa damaa tey damaa kii moo tax. da ngaa waaw dara du mbër mee dugg si waaw. am nga combat. non sama combat moom mënu ma ko cee wax ndax amul benn avancement. mu ni waaw waaw. Ah. ëppali di daan ñëppay daan incha allah parce que mérité nañ ko. si si bëre. xam après dinaa la wax fa laaw teg. ay xale lañ yoo xam ni am na lu ñu bëgg te ñu ngi koy jëfe ba pare ñu ngi topp seeni i ndigalu mag yaa ngi dégg xale yi buñ boo leen gisee xam ne ñu ngi dégg ndigal ñu ngi toog fu ñu war a toog ñu ngi def lu ñu war a def loolu rek moo leen di may ndam. noo bi nice ci kuy kuy soog a commencé nañ leen ñaanal jàmm ba pare jàppale leen promoteurs yi fi njëkk nañ jàppale ñi mujj te xam ni loolu mooy àdduna bu kenn buux kenn bu kenn tànc kenn na ñëpp yaatal ñëpp ñëw dugg si affaire yi gën a yaatu fii ku nekk sa wërsëg ngay lekk te alee nit ku baax la nañ leen jàppale affaire yi gën a développé waaw. Assane maa ngi lay. maa lay fay. ci loolu. sant yàlla bu baax xam ne noo gisee làmb. waaw may félicité Alain ak Jimbo ak Pape Sarr macha allah. làmb géej la ku ne mën na si ñëw rek bay sa seen du asamaan la jarul buuxante. làmb ju neex lañ tëgg. làmb ju am ambiance yàlla na leen jikk ñaan leen si jàmm. ginnaaw bu làmb tëjee. muu bi tey stade bi mel nii. en tant que promoteur ñoom ñuy soog a door nga jiitu leen lan dama si am kontante xam ne buñ gënee dem mun yàlla mun nañ def ba nu ub arène nationale ndax commencé am lu mel nii yàlla buñ am lu leen jaaxal wala lu leen fakkatal macha dëgg yàlla lii laa leen doon ñaanal am réussite te am nañ ko waaw nice na trop. le 24 incha allah le 24 octobre Balla ak bu ma waaw loolu mooy dañ dëpp gi si yàlla dinañ gis làmb ju neex. organisation bu rafet lépp luy neexal làmb danañ ko jël incha allahu rabbi lépp luy neexal amateurs yi danañ ko jël bi ma ñëwee ñi ngi may réclamer euh, Momo Ngom ak ndaw si Mbaye ak Loum pour ñu andi leen le 24 incha allah lépp lu amateurs yi soxla man pare naa ko te li ma koy paree noonu la ko Bamba di pare Iba Mar Diop lay amee si kàttanu yàlla buñ fa tëggee ba pare dañuy tëjaat caabi ji yóbbu ko yóbbu ko défoncé du jot ci caabi ji du si jot te le 24 ngay xam ne lépp dëgg la incha allah waxu ma la mbër yi mais ni ma koy waaje noonu la ko Bamba Fall di waaje borom Medina kooku lu mu jàpp rek dagg rek incha allah. merci jaajëf. baax na pël. ci loone sant yàlla Ahmadou borom jaam mbokki Sénégal wala Brésil comme ni ko jili waxee wala France wala fan non borom Brésil yaa di nuyu sama gaay waa Brésil waa Magadu São Paulo yi maa leen di bëggee sama gaay yi indi wala fa tombé ah lamb indi wala fa tombé non ginnaaw màggal gi moom vraiment lamb ji moo ñu fi indi quoi màggal gi lamb ji naka ngeen c'est la première fois ngeen soog a ñëw lamb wala mosoon ngeen non làmb nag si lañ daanaka non duñ ne duñ ne duñ ne gulet tey nag yàgg nañoo ñëw làmb ndax dañ see nekkoon après yàlla dogal ñu voyage yi tukki mais teewul ñu bàyyi daal fu làmb nekk ñu ngi koy topp. naka ngeen gisee làmb ci jamono ji dox. waaw làmb ji ni ma ko gisee nii nag sant yàlla quoi vraiment gis naa yokkute ak dox. dox bu baax sax waaw dox bu baax sax laa gis parce que ñi nekk Sénégal ñu xam ndax làmb mi ñu doxam mais ñun ñi nga xam dañuy dem di ñëw man ba ma ñëwee ba dugg si vraiment kontaan trop daal. fàttalil gars bi. ah tur ko gars yi. Zeus Zeus Zeus de. dooraat waaw. Zeus koo faral. waaw tey nag lamb laa faral nag wax dëgg yàlla tey moom mun naa amateur laa ñëw seetaan daal. waaw mais nag Kalma mbër bu ma neex la. parce que man damaa bëgg mbër bu waane quoi mbër bu doj. ndax ba ma duggee ba gis ko man dama gën a toog ba bi ma njëkk a laa toog <laughs> wax dëgg yàlla Kalma <laughs> ndax dama gis Boy Niang ci moom quoi xam ni ñu koy waxee. bu gisee xel day dem si Boy Niang daal. waaw man damaa bëgg mbër bu doon. waaw vraiment gis naa ko. te xam nga maanaam amateur dañuy bëgg mbër bu dooj daal mbër boo xam ne da ngay ñëw comme ëppale nu muy def waaw indi lu bees tax xam nga waaw yaa ma gën a xam daal boo tuusee ñëpp xam nga séeréer si ñëw kontaan daal. waaw di leen bëggee comme sama rek waa maget bi magetu kooli di leen bëggee ASC bi waaw maa leen di bëggee di la bëggee eh, waaw Maguette Sampaoli mu ngi leen di nuyu Moussa Mbaye Paul yónnee ko 12 Pro Max mu gaaw ndax waaw Paul kontaan naa de. Mbaye si maa ngi lay nuyu. waaw maa lay siyaar Paul. <laughs> waaw naa se baay. nga ne man sa lal. sama chéri wala maa bëgg barki alxuraan <laughs> doomu ndey Garga Mbossé boo bëgg Paul ba daw si dara. waaw naas mi ngi nii cool. non man nag maa ngi fi quoi. nekk fii laay dóoree waaw. waaw zës kii suma waay la. naka nga gisee moom neex na trop. billaahi neex na trop ndax li dañ ko namoon quoi ah. man garga ah, rek. dama ñëw seetaan si rek. amateur. la waaw. ban mbër nga rek te ñun ay doomu séeréer leen. ay doomu séeréer leen bu ñu gisee xam doomu séeréer ak nu mu dugg see pare na de yàlla na moo yor ndam mais pare na quoi noonu la demee waaw. kon kon kon may si xaritu pël bu rafet ki neexul noonu la demee nag. koy wax fu ne bilaay fu ne laa ko jooy si àdduna ah xanaa kontaan. kontaan ko. continuer mel ok. mais sama doom day moo lay jox douze pro max bi nag waaw. ndax eh, sama gaañ la te xam na ne lu ma bëgg bëgg na lool. je sais. eh. max bi yaa koy jox. non Moussa laa koy booleel Moussa Mbaye. coow di jub. ma ànd ko. jeex na jeex na eh da jox téléphone bu ragal loolu. te dafa war a fay bor bi. yaa ko joxoon avance bi. amel bor boo xam ne del ma ko war a fay. ko amee. buur ku ko amel da koy fay dama joob la ma daan del maa war a del war a fay sama bor. voilà. revanche ngay revanche waaw bor bi ku ko amel buur ku ko amel da koy fay. sama digganteeg mobile loolu anyway loolu fii mu ne nii ñu ngi si leneen. non mënu ma wax ne daa daaw mënu ma wax li ko teye parce que góor yàlla la sa góoru moroom mënoo ne dafa daaw xëj na daa am lu ko teye ba ñëwul mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ñun nekkuñu fi pour benn adversaire rek ñun nekk nañu fi pour lam ji yëpp ñun parce que man aw ma xaritu mbër tous conseil comme li Gris Bordeaux doo doon wax pare naa pour ñëpp képp ku dekkul baaw rek pare naa pour bërek yow. instant ñan la Bour Sine war a ñan ñooy say adversaire potentiel. man la. ak euh, Modja wala ay grand sarko yi wala gars yi nii ñu bëre. defet la non garaawul loolu éliwee loolu garaawul ay morom lañ ñun ñëpp da ngay daan ñi ñuy daan la. Assane am Assane paax Assane sama grand la mosuma tegal combat ma daanu nag jig na ma mosuma tegal combat ma daanu. Assane tegal ko. Ibamar maa ko moom faa daanu saa fu ma dikkee dama naa maa ko moom. Assane loolu du Thiès ma tegal yëpp dama koo gaañe. Ah, waa ndam si Tafatin ñun ay bawal bawal lañu ñun xamuñu sa Boy Niang Tafatin lañu xam waaw. maanaam dina neex dina. Tafatin da koy jàpp daan ko waaw. instant may woo am na promoteur yu may woo di ma waxi combat mais combat ñu may wax gënalu ma. Ah, waaw man dama bëgg bëri laa bëgg ñu fay man dama pare pour ñu ma ameloon ay bor ñu fay ma ko. wala sarax Ndongo Ndiaye wala mu tibak dooleem loolu laa pare Bur Sine dafa ñëw ak beneen phénomène ak beneen loo xamante ni lu bees la man ak sama staff ak samay gaay ku si ni Baye Laat ay Bur Sine de booy ñoom moom Ameth Lagros ñun chaque jour ma liggéey entraînement la ñu gëm ñu ngi si pare nañu pour ñëpp nañu fay bor yi. merci. ok Paul bu rafet. maa ngi lay fay. ci loolu. rek. non Rouga moom dama lay mbalak damaa gis ne da nga am xaalis temps yi rek yaa ngi sa waay waaw yàlla yokku rek mooy waaw. combat ñu ngi xaaraat ñun moom ci entraînement lañ dëkk moom waaj nañ combat Eumeu Sène bi Laurent Siteu di ñaan yàlla may saway ndam kii Marle waaw loolu rek la ñuy xaar fi mu nekk nii. ñan lañ nañ ay mbër mais xam rek mbër moo ci wax day day jëndi galaas ay soow. xam naa ruuxee xale laa damay wóolaat de wulli rek waaw. bari na ñoom Malick Niang war naa bëri ñoom ñoom Moussa Ndoye ñoom Modou Anta waaw. combat mu fi def defuñu ko fi sax booy xool waaw. ma maanaam ni mu taxawee nii du yoon daal. du yoon dama war a bëree tey suba ñu jox ma combat ma ñëw ñu xam ne man mën naa wala mënu ma. papa bi da ngaa gëj a waat. waaw damaa nekkoon ci préparation ñu ëmb seen rek mais instant bi sant yàlla bu baax. ba mu neex xaalis kay daa neex ci boos. bi damay dem. waaw. na yii ni passé dafa fekkoon ma am yu ma waajal dama am job ma nekk loo moo ay ca